surtout si secteur yu wuute yoo xam ne fekk woon nañu corridor bi nga xam ne waa MEDES doon nañu ko amal samedi ji nga xam ne moom la ñu génn ca King Fahd Palace ci dix-huitième édition bi journal bi nee na dix-huitième édition bi occasion la ci président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES ngir nag mu daal di dellu si waat ci lan moo waral événement bii nga xam ne mooy corridor mu daal di dem sax ba mu mujjee imposé wa ci déndu Afrique di dajale mboolem ñi nga xam ne maanaam ay kàngam lañu ci domaine bi nga xam ne moom la ñu nekk moo xam ci lu jëm ci wàllum économie wàllum scientifique wàllum sport wàllum politique wàllum culture yéen kaay gi nee président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite ko a baax discours bi njiit réew mi di président nga xam ne moom la ñu génn daan nay wax sensu corridor moom tim ba mu jëlee kàddu ga daan nay jaajëfal bu baax a baax président Mbagnick Diop nee na ko exemple nga am nga détermination rawatina taxawaay bi nga xam ne amee nga ko ci réew mi ak lu jëm ci wàllum forum du premier emploi yéen kaa gi nee na Cellou Dalein Diallo moom tim bokkoon na ci invité d'honneur yi Pape Demba Bitèye directeur général bu Senelec L'Oréal corridor waaw journal bi nee na yokk si docteur Mame Anta Sané secrétaire général bu conseil économique social environnemental réew mi quotidien nee na en bi nga xam ne doon nañu ko amal samedi ji ñu génn dix-huitième édition bu corridor président Mbagnick Diop ak Youssou Ndour toj nañu soirée ba yéen a kaay gi de le quotidien bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum politique ci xët mu njëkk mi ñu fekk fa Nicolas Ndiaye secrétaire général bu LD daan nay boo xam ne mooy gën fuuf Macky Sall Benno Bokk Yaakaar peut meilleur que Macky noone la waxee ci bi yéen kaay gi di Vox Populi Aïda Mbodj nee na candidat la ci élection moom Aïda nee bu ñu ko joxee réew mi lu jëm ci wàllum état de droit dina ko lijjante moom Aïda nee na bu ñu ko joxee réew mi lu jëm ci wàllum démocratie dina ko ñongolaat ci Sénégal ak lu jëm ci koomu réew mi ak lu jëm ci wàllum sécurité ak yeneen ak yeneen yéen gi di Vox Populi nee na ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi jamono ji dañoo bëgg ñu jox leen réew mi ndax ginnaaw Aïda Mbodj docteur Rose Wardini moom tim nee na la ci élection présidentielle 2024 moom Rose nee na nag bu dikkee lu jëm ci wàllum emploi wàllum xëyum ndaw ñi dina ko lijjante moom Rose nee na bu ñu ko joxee réew mi lu jëm ci wàllum entrepreneuriat dina ko lijjante moom Rose nee na bu ñu ko joxee réew mi lu jëm ci wàllum sante ak lu jëm ci wàllum environnement dina ko lijjante en tout cas jox leen jigéen ñi kon réew mi parti socialiste maanaam bu ngeen déggee ñu ne leen tas na tasaar bu mu leen bett loolee moom bu mu leen bett parti socialiste maanaam candidat socialiste ñi nga xam ne ñuy waa IRAS initiative réflexion et action socialiste ñoom tim nee nañu ab candidat la ñu bëgg ci yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Abdourahmane bu awale moom nag li mu bëgg maanaam candidat yi ñoom ci seen biir toog di débat wax seen programme yéen kay gi di Rewmi Quotidien Souleymane Ndéné mi nga xam ne jamono nekkoon na premier ministre jamonoy Abdoulaye Wade nee a dem ci élection mën a bàyyi Ousmane Sonko mu dem ci élection moom Souleymane Ndéné Ndiaye neen élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal mën a la gis nga bu ñu bàyyee Karim Wade Khalifa Ababacar Sall dem war nañoo bàyyi Ousmane Sonko mu dem bu ñu ko bàyyiwul mu dem nag loolee du nekk loo xam ne lu jaadu lay doona te nag bu ñu bëggee réew mi nga xam ne mooy Sénégal am jàmm réew mi amul na ñu bàyyi ñëpp ñu bokk ci élection yi kàddu yi Souleymane Ndéné Ndiaye la yéen kaay gi di évidence Bougane Gueye Dany nee na opposition bi bu ñu bëggee gagné nag ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar il faut ñu def ñaari bloc maanaam ñaari bloc yoo xam ne yu dëgër la xam ne danañu mën a saytu superviser sécuriser li nga xam ne mooy élection yi moom Bougane Gueye Dany nee na jamono ji nag li ci président Macky mu libéré ñi nga xam ne ñooy détenu politique yi yéen a kaay gii di Le Quotidien nee na élection présidentielle 2024 kan la Macky di samp loolee mooy laaj bi ndax Amadou Ba ndax Mohamed Boun Abdallah Dionne la ndax Abdoulaye Daouda Diallo la ndax Aly Ngouille Ndiaye la ndax Amadou Mame Diop la yéen a gii di Libération xëy gare train express régional bu AIBD inauguré nañ ko président Macky Sall nee na am na juróom-ñaari train yoo xam ne léegi te ñu agsi yéen i kaay gii de Les Échos nee na Macky Sall jamono ji commencé na campagne mën na la gis nga Macky Sall candidat bi nga xam ne moom lay tabb Macky Sall commencé na ko campagne la yéen i kaay gii de Le Quotidien yor yor ñu koy fekk fa économiste Meïssa Babou nee na en tout cas ndax Sénégal yi yëg nañ ne Sénégal bor yi ko topp bëri na lool moom Meïssa Babou nee na li nga xam ne moo ko jaaxal mooy Sénégal dafa leb ba maara de tali ba pare askan nga xam ne ñoo yeewoo ci réew mi ne la pauvre nañu na nañu xiif nañ tay nañ damm nañu yéen a kaay gii di enquête xëy duñu xibaar naan ñu diggante France ak Sénégal diggante ba neexatul bu ñu waxantee dëgg yéen a kaay gi nee na axe Dakar Paris mën na bi neexatul journal bi nee na président li nga xam ne moo ko gën a naqari ci France mooy keroog bi nga xam ne Emmanuel Macron daal na yónni ndaw ngir mu dem gisante ak Ousmane Sonko loolee ci boppam moo métti ñi nga xam ne ñuy waa France waaye nag boo ci yokkee France 24 ak traitement bi nga xam ne moom lay def ci événement yi nga xam ne mooy am naqari na gouvernement bu Sénégal gouvernement bu Sénégal ñoom dañu jàpp ne France 24 dafay par parloo yéen i kaay gi de Libération xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy waa impôt ñoom nag def nañu ab contrôle ci société Ericsson Sénégal defal ko redressement fiscal boo xam ne ëpp na juróomi milliards yéen i kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Ama Baldé nee na jamono ji waxul waxi Modou Lo li mu tal ak li mu teg bët mooy combat bi nga xam ne moo dox digganteem ak Gris Bordeaux